yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu juróom ñaareelu njàngale mi yàlla mëdd na suuf si ak ndox nanu bamtu nettali bi weesu benn kan moo jur kayin ak abel adama ak awa ñaar ndax kayin ak abel ci toolu ajana lañu juddoo déedéet ñett bi kayin ak abel juddoo ndax kóllëre amoon na ci seen digganteek yàlla déedéet ñeent lu tax yàlla nangu saraxu abel te nanguwul bu kayin ndaxte abel dafa tuur deretu mala loolu wone na ne xam na ne bàkkaarkat la te yelloo na dee abel gëmoon na ne yàlla rek moo ko mën a musal gëmoon na itam ne yàlla dina yónni musalkat bi waaye kayin bëggoon na jaamu yàlla ni mu ko neexe gëmul woon ne yàlla rek moo koy musal te it deful sarax bi yàlla santaane juróom lu tax kayin rey abel ndaxte dafa añaane abel ndax lii yàlla nangu saraxu abel juróom ndax jaadu woon na yàlla daan kayin ndax li mu rey abel waaw juróom ñaar ndax jaadu na yàlla daan nu ndax sunuy bàkkaar waaw mbind mu sell mi nee na ci njëlbeen gi saar juróom benn aaya juróom ba aaya juróom ñeent aji sax ji gis ne coxoru nit rëy na lool ci àddina te fu ñu mën a toll lu bon rekk lañu daan xinte ci seen xol kon aji sax ji tiis ci xolam ba metitlu li mu doon sàkke nit ci àddina aji sax ji ne dinaa far ci kaw suuf doomi aadama yi ma sàkk nit ak jur luy raam ak luy naaw ndax mettitu la li ma leen doon sakke waaye aji sax ji xool na noyin bëti yiw lii mooy nettalib askanu noyin noyin nit ku jubla woon di ku mat ci biir niti jamonoom tey ànd ak yàlla bu leen fàtte ràññee melukaani yàlla yi ci nettali bi yàlla mëdd na suuf si ak ndox nettali bi mu ngi aju ci bi yàlla sànke àddina ak am mbënd jamono ñëw nit ñi barewaat ci kaw suuf diggante nit ñi ak yàlla amul woon kóllëre nit ñi daan nañu gudd fan dund ay at yu bare adama dund na junni at yu may juróom ñaar fukk amoon na ci sëti adama yi ab nit bu tuddoon enok enok fasoon na kóllëre ak yàlla bi enok amee ñetti téeméeri at ak juróom benn fukk ak juróom la ko yàlla yóbbu ca nguuram enok jaarul ci dee waaye dem na ca yàlla enok amoon na jenn doom ju góor ju tuddoon matusala matusala dund na junni at yu mooy fanweer ak benn am na ñu doon topp yàlla waaye nit ñu bare topp ñu woon yàlla yàlla gis ni nit ñi bone seen bopp lañu yëgoon tey topp seen bakkan yàlla amoon na naqar ci li mu sàkk nit yàlla ne dinaa sànk lépp li ma sàkk amoon na genn góor gu daan topp yàlla nit ku jubla woon mu ngi tuddoon noyin noyin amoon na ñetti doom yu góor ñu ngi tuddoon sam sem ak safet noyin mu ngi doon topp yoonu yàlla waaye ci ay jamonoom nit ñi dañu bonoon yàlla amoon na yërmande ci noyin yàlla ne noyin dinaa sànq àddina ndax ci nit ñi dañu bon yow ak sa waa kër rek yéenay mucc yàlla ne noyin bëgg naa nga daaj genn gaal gu mag ndaxte dinaa wàcce ndox mu bare ngir sànq àddina war nga yóbbaale ci bépp xeetu mala bu góor ak bu jigéen yóbbaaleel dund gu doy itam ngir sa njaboot ak mala yi yàlla wax noyin ni muy daaje gaal gi mu wax ko mu defar gaal gi ak bantu sipre te diw ko ak goudron mu wax ko mu defar benn bunt ci genn wetu gaal gi dajgal gi jël na téeméeri at ak ñaar fukk ci jamono jooju noyin di arti nit ñi naan leen yàlla dina leen atte waaye ñu déggadi di ko reetaan benn bés yàlla wax noyin ne moom ak waa këram war nañu jël ci mala yépp te dugg ca gaal ga yàlla moo tëj buntu gaal ga mu taw ñeent fukki guddi ak ñeent fukki bëccëg ndox mi mëdd suuf si ba mëddaalee tund yu mag yi dara mënula rëcc kenn mënula rëcc lépp lab noyin toog ci gaal gi ay weeri weer ca mujj ga taw bi sewet nooyin yebal am pitax ngir xam ndax am na fu fendi pitax mi dem dellu siwaat ndaxte amul woon fenn fu fendi gannaaw juróom-ñaari fan noyin yebalaat pitax mi yoon woowu pitax mi dellu si ak xobu garab ca sàllam ñu teg ci juróom-ñaari fan noyin yebalaat pitax mi pitax mi dellu ñu teg ci tuuti suuf si fendi bi ndox mi fere noyin ak waa këram ak mala yi génn gaal gi noyin tabax saraxukaay daldi saraxe gàtt ngir màggal yàlla yàlla nangu sarax si yàlla dige ne dootul mëddati suuf si ak ndox noonu mu def genn xon ci kaw asamaan mu di màndarga bi yàlla wax noyin ak waa këram ñu am doom yu bare ni mu ko waxe woon aadama ak awa yàlla ne itam ñu tasaaroo ci àddina gannaaw mbënd mi nayin dund na ñetti téeméer at ak juróom fukk ay doomam jur ay doom yu bare jamono ji wéy àddina si barewaat nit fii la nettali bi yem am na ay laaj benn kan mooy enok ak lu ko enok eh, nit ku am kóllëre ak yàlla la woon yàlla yóbbu na ko ca nguuram te booba deewul woon ñaar ci sa xalaat naka la nguuru yàlla mel nguur yàlla bërëb bu rafet la foofu amul bàkkaar amul itam tiitaange naqar jàngoro walla dee ñi dëkk foofu yàlla dina leen may lépp li ñu soxla kóllëre ak jàmm ñoo am ca yàlla nguur yàlla ab bërëb la waaye nekkul ci àddina ñett lu tax yàlla am naqar ca jamono noyin ndaxte yàlla gisoon na ne nit ñi mu sàkk dañu bonoon ñeent naka la nit ñi doon jëfe ci jamono noyin seen bopp lañu yëgoon tey topp seen bakkan juróom ndax nit ñi ñu ngi doon dund ci coobare yàlla déedéet juróom lan la yàlla façon yéene def bu ñu tuubul woon façon na yéene rey lépp luy dund juróom ñaar ndax yàlla artu leen waaw noyin wax na leen ñu tuub juróom ñett ndax déglu nañu noyin déedéet juróom-ñeent ndax yàlla wax na noyin naka lay daaje gaal gi waaw fukk naka la noyin mucce mu ngi mucc bi mu jaaree ci bunt bi dugg ci gaal gi fukk ak benn ñaata bunt la gaal gi amoon benn bunt rek te yàlla mu tëj bunt bi bi ñoom noyin duggee ci gaal gi fukk ak ñaar ndax nit ñi mësoon nañu gis taw balaa loolu déedéet mësul woon a taw bala loolu dafa daan lay rekk fukk ak ñett lu tax yàlla musal noyin ak waa këram ndaxte noyin doon topp yàlla te gëmoon na ne yàlla dina ko musal fukk ak ñeent ban màndarga la yàlla def ngir won nu ne dootul sànq àddina ak mbënn yàlla def na ab xon muy ab màndarga fukk ak juróom lan lanu nettali bi woon ci mbirum bakkaar bàkkaar moo teqale nit ak yàlla te moo indi dee yan melokaan yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla dafa muñ xaar na téeméeri at ak ñaar fukk bi noyin di daaj gaal gi bala muy daan nit ñi ndax seeni bàkkaar yàlla won na noyin naka lay daaje ak gaal ngir bañ a sànku yàlla dafa jub yàlla daan na nit ñi bàkkaar yàlla mooy boroom doole yàlla wàccee na mbënd mi yàlla bëggul bàkkaar yàlla daan na nit ñi bàkkaar yàlla tëj na buntu gaal gi te kenn mënu ci woon a yàlla lu mu dige def ko yàlla musal na noyin ngir matal li mu digoon aadama ak awa nu waxtaan ci nettali bi ndax ci sa xalaat nit ñu bari ñu ngi doon reetaan mënooyin bi muy daaj gaal gi waaw lu ngeen yaakaar ne noonu lañ doon xoolee noyin ne dafa yembadi bu nit gëmoon ne li noyin doon wax dëgg la waaye bëggul nit ñi reetaan ko mu xool noyin ba mu dugg ci gaal gi waaye moom mu bañ a dugg luy xew ndax kooku muccoon na ca mbënn ma déedéet ndax xam dëgg gi rekk tax na nit mucc déedéet lan lanu loolu di woon ci mbirum yàlla nit ki dafa war a topp li yàlla wax bu nit gëmoon noyin waaye ci xelam mu ne dina yéeg ci aw tund wu kawe ndax doon na mucc déedéet lan lanu loolu di woon ci mbirum yàlla yàlla sàkk na yoon wi musal nit ba noppi nit ki warul def lenn lu dul topp yoon woowu bu nit gëmoon noyin waaye mu naan dafay nëgandi mu xaar ba buntu gaal ga tëju muy fëgg naan ñu ubbil ko xalaat ngeen ne kooku doon na mucc déedéet lu tax noyin doonu ko mën a ubbil ndaxte yàlla moo tëjoon bunt bi lan lañu lool di won ci mbirum mucc gi bu nu yàlla wonee lenn dañu ko war a def te bañ a nëngëri lan lañu war a def ngir mucc war nañu topp yoonu yàlla ci ngëm lu mat sëkk beneen yoon dinañu waxtaan ci mbirum taaxu babel